bismillahi rahmaani rahim bokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci suñu fukkeelu jataay ak juróom-ñaar ci yi nga xam ne ñoo ngi koy ànd ak ci biir weeru koor wi di ci waxtaane yi tax yàlla bëgguñu bokk na ci tax yàlla bëgguñu nit ki nekk ku teey nit ki nekk nit ku teey nit ku teey nag mooy nit ku baax rek nit ku baax waaye tam teey bokk na ca koo xam ne dafay set bëgg xet gu neex bëgg xet gu neex kooku itam daa bokk ci yi tax yàlla bëgg jaam bi ndax jëlee nañ ci Saalih ibnu Abi Hassan mu ne dégg naa ci Saïd ibnul Musayyab mu ne yonente bi sallallahu alayhi inna allaha tayyibun yuhibbu tayyiba yalla day ku set la ku kusel, la ku sel tra beug lu teey lu sel yalla ku teey la ku sel la tra beug ku sel kon ngay set di laab di xéñ lu neex fex bay am xet gu neex fo tollu loolu da bëgg daa day tax yalla beug la set lo ni nañ la malaaka yi sax kuy dem maanaam malaaka yi sax kuy dem jàkka dañuy bañ nga laal xetuk laaj mbaa xet gu naqare rek ndax malaaka dañ fay ñëw te ñu xet gu naqare boo gisee sax julli ajjuma mbaa julli aydi mbaa même julli mbooloo sax ñu digal la booy dem nga laal parfum xet gu neex ndax ña ngi fay dajeel di seen bokk jullit ak malaaka ya fay ñëw itam dañuy bëgg xet gu neex mboolem ruu yi tey yëpp dañuy bëgg xet gu neex dañuy bëgg xet gu neex ci alquran yàlla mi ngi wax naan wa tayibaatu li tayibiin ñi baax te teey ñu góor ñi ñu jigéen ñi dañuy bëgganteeg ñi baax te teey ci góor ñi wa tayiboona li tayibaat góor ñu jigéen ñi ñi baax rek te teey te set te sell ñoo mën a ànd loolu nag day làmbu teey ci ay wax teey ci ay jëf teey ci ak lekk teey ci ay naan set ci ay yére set ci xet kon tayibun fii kulli say in nit ki daawa nekk ku neexi wax ku neexi ree ku neexuk lekk ku neexi naan set ay yére xeeñ lu neex nekk ku xay kooku loolu yàlla da koo bëgg loolu yàlla da koo bëgg kon euh, loolu bokk na ci yi tax yàlla bëgg jaam bi ñu tax a fa ba ala ñëw yéen ci beneen jotaay wasalaamaaleykum